seen site Dakar Matin moo leen di seen revue de presse ak Pape yi ak yéenekaay bi di Vox Populi xëy tey jii ci xëtam bu njëkk du ñu yëgal ne juróom ñeent organisation islamique dogu ci jihaad ngir ñu bàyyi kii di Imam Ndaw Ligue des imams Jamra JIR dini AMS la coordination musulmane bu Rufisque coordination musulmane bu Kaolack nitu dëgg daarul alxuraan ñoom ñëpp dañoo gën ne fi mu nekk nii kii di imam ndaw dañ koy sosal waaye li liñ koy waxal tuuma wala dara amu ci Moustapha Ndao di doomam moom mii di imam Ndao lu mu wax nee na sama papa bu nekkoon terroriste te muy dëgg ñu xam ko ñu ñooy njëkk a doon ñi koy xeex parce que gëmuñu lu ñu mel. yéen kaay bi l'observateur ne njabootu imam Ndao ak ay avocat ñoom jàpp nañ ne fi mu nekk nii procès bi teguwul ci benn preuve te na nag ñaa ngi tàmbalee wax ma Matar Gueye ci yéen kaay bi Les ne waaw président Macky Sall hébergé na fi ñaari terroriste yu bàyyeekoo ci Guantanamo fii ci Sénégal Abdou Karim Guèye yokku ci leneen ne li ma leer ba leer ñu ne ko lan la mu ne bu ñu doonoon ay ñaseen wala ay mbàkke mbàkke kenn du leen jàpp benn yoon waaw xalifa sàll bu bokkoon ba tey jii Benno Bokk Yaakaar est-ce que li ko dal nii dina ko dal njort nuñ ko benn yoon ci biir yéenekaay bi di Vox Populi Maître Ndeye Fatou Touré ne li am ba des nguurug senegal mënuñoo bañ a jëmbal décision bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo. ca CEDEAO faw ñu appliqué ko l'observateur ca booba moom yóbbu Khalifa Sall ne hee ginnaaw Karim moo ci nar a topp ci lan l'observateur ne bés buñ ko condamné dinañ sukkandiku ci article 34 bu code pénal article L 31 L bu code électoral génne ko ci fichier yi manta nekk loolu la ñu Khalifa Sall yi wax ni techniquement. politiquement manta nekk benn yoon ñu génne xalifa Sall ci liste électorale yi Ibrahima baaxum ne yéen de xamu leen Macky Sall mii nga xam ne deuxième tour la bañ lu man dina ko def ngir faagaagal ay candidat grand parti bu maali Gakou ci biir yéen bi di Vox Populi ne nërmeelal démocratie la fi Macky Sall nekkee te loolu moom mooy dëgg ñoom loolu la ñu gëm ba tax ci biir yéen kaay bi Les Échos waa FPDR nee nañ dañu dem ca CEDEAO ngir xeex wàllu pare parrainage ñu ne leen waaw lu tax ca CEDEAO ñu ne ah kon kat lu ñu gis mooy CEDEAO rek mooy cour de bu baax tëddee njaaxaanaay fii moom loo fi indi nous sommes incompétents tële ci lépp kon ñu dem ca CEDEAO te nag nguuru Macky Sall xamul lu dul defante ak xeex din ko ko jox ba mu mat sëkk waaye Sénégal deret manque na fi ba tax yéen kay bi di enquête na alerte rouge sa Thiès ca Mbour ca Ndar nag la gën a graawee yéen bi di laas ne arsenal juridique ci pétrole ak gaz dina noppi ci weeru septembre gi ñu jëm yéenekaay bi di laas ba tey jii di ñu xamal ne sa université Gaston Berger directeur UFR sciences juridiques et politique moom jël na dogal dakkal ay kuuram waaye ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu tàggat yaram di ay taskatu xibaar mere nañ lool Aliou Cissé mi nga xam ne waxtaanam bu njëkk ginnaaw bañ ko éliminer coupe du monde mi ngi ko jox tubaab yi ci yéenekaay bii di l'équipe ñu ne mere nañ ko lool yéen kay les échos moo ñu ko xamal waaye lan la fa Aliou wax nee na amul benn regret ci parcours bu mu def ci coupe du monde te nag bëgg na toog ba tijji di tàggat gaynde yi ndax jàpp na ne mbir mi mënul yem fii faaw ñu jàll ci beneen étape ñu ne ko waaye looy xalaat mu ne gagné coupe ak génération bii jërë ngeen jëf si déglu bi ngeen di daje soo jëm seen site dakarmatin.com incha allah.